je pense que vraiment mbëkk mi ça devient trop sérieux bu ñu jëlee rien que Bargny quand même deux cent soixante-quinze jeunes qui disparaissent barnier en deuil depuis depuis mm. quelques jours et puis euh, avant Bargny il y a eu Rufisque il y a, eu tel Saint-Louis mm-hmm. bon vraiment c'est tragique mm-hmm. bon heureusement que gouvernement bi jël na des mesures d'urgence mais pour man des na ba léegi mm-hmm. franchement fu ñu toll ni Sénégalais yi yëguñu musiba bu euh, on on n'est pas conscient de la gravité de la situation mm-hmm. parce que ñu dem ñuy wax le ils ont disparu kenn xamul fu ñu nekk ñii dee nañ ñi ñu ngi leen di rapatrier et c'est des familles euh, en général amuñu doole mm-hmm. euh, et il y a pas de soutien psychologique il mm-hmm. pas de soutien sanitaire il pas de soutien financier de temps en temps da ngay dégg yu ñuy rattraper euh, ruñ euh, ñi nga xam ne dañ leen rapatrier ñu jox leen ay dix mille francs quinze mille francs bon pour man vraiment président Macky Sall euh, ci suma xalaat war na wax ak askan bi c'est une véritable tragédie qu'on est en train de vivre c'est pas un problème euh, d'urgence c'est pas un problème de c'est un mm-hmm. fii dina dina fi nekk mm-hmm. Euh, il faut que gouvernement bi taxaw président taxaw que sénégalais taxaw pour jéem a xool est-ce que jarul euh, ndaje pour xool au moins président li mu wax par exemple comment bloquer les départs massifs mais ça c'est l'État c'est les collectivités locales c'est les mouvements associatifs c'est les mmh. parents mmh. c'est peut-être même l'école les mmh. syndicats mmh. mu nekk une question nationale mmh. parce que honnêtement moi j'ai euh, un peu peur d'ici quatre mois bon si ça continue fu ñu jëm avec euh, une campagne électorale euh, avec des pans entiers en deuil c'est ça vraiment man c'est euh, un problème sérieux war nañu jóg ci suñu bopp côté mbëkk mi